duma la wax li moo wax grand man je suis politique et j'en suis fier li nga saaga politique yi ne ay dealer lañ ay comploteur lañ non laisse-moi j'arrive laisse finir ma ah, ah, waxuma loolu grand d'accord hmm. mais dealer lañ ay comploteur waxuma loolu foo dem ci àdduna politique mooy doxal àdduna ah, hmm. te dem na jamono ba yow nga jàpp sax ne da nga war a dugg ci langue gi. man mi ah. yow citoyenneté pour ci réew mi. citoyenneté mais looy doxal. politique c'est 221 citoyenneté c'est ah. pas grave. bon pour revenir sur Ablaye Wade. man defuma spéculation dama wax sama kanam mani je pas de problème pour condamner li xew Guinée je l'ai fait mais awma leçon de morale démocratique bu ma leen jox defuma bilan wu Guinée parce que débat bi du def le bilan économique ou les richesses de la Guinée. dañuy évaluer la Guinée du point de vue démocratique Sénégal lu nañ jommee gën a graaw mi ngi fi soo waxee waxu Ablaye Wade deal protocole j'aimerais bien voir ce protocole ou nga jox ñu les terme du protocole xam nga spéculation communicationnelle yomb na mais dafa war a porter sur des faits dama nga ñëw avant nga ñëw dama wax ci sama wax lu leer Ablaye Wade avant muy ñëw Sénégal ay président ay kilifa diine jóg nañ sol dàll di dox ci diggante problème am moom ak Macky Sall. mais si ce qu'il dit n'est pas vrai on s'attend à une plainte alors hein. laisse-moi terminer qui ça. Cheikh Yérim. par rapport à la PDS euh, euh, plainte de quoi spéculation les gens comprennent je lui apporte des contre-arguments. <laughs> parce que li mu wax li c'est pas parce que tey mënoo ma prouver parce que Abdoulaye dem na Guinée dafa deal ak Macky Sall. deal pour faire quoi pour avoir quoi Yérim vous savez le le danger de ce pays c'est quoi. Hmm. c'est que les gens ne croient pas aux principes la démocratie c'est d'abord une question de principe mënoo ma taxaw ma wax la ne la parrainage lu ñëpp a d'accord tey ñi jor réew mi sax def ko génnee réew mi def ko état de siège loolu da nga mën a évaluer la valeur antidémocratique de cette forfaiture. Lamine dama d'accord ci parrainage non c'est ton droit. xam nga lu ma d'accord ci parrainage non laisse-moi terminer d'abord mais non dañuy waxtaan. non dañuy waxtaan non nañu waxtaan. non mais xam nga waxtaan bi pour mu neex xam nga pour mu neex. je raisonne boo waxee boo waxee benn affaire je vous ai laissé la parole au moins. Ah. daggee sama temps de parole. ma bàyyi la ko déglu la douze minutes. waaw j'ai le droit de parole ma bàyyi ma ma wax. deux trois minutes dama <laughs> c'est parce que Wade dem na Guinée loolu nëbbatuwuñu bëccëg la Ablaye Wade dem Guinée. Hmm. bu doon laaxatu day dem guddi. Hmm. wala bu bëggoon gis Macky Sall da koy gis guddi. mais Lamine Alpha Condé lan la wax fii. mais Alpha Condé dafa wax publiquement mais Alpha Condé a dit non Alpha a dit fii Dakar wa France la ko wax. j'ai parrainé de discussions et un accord entre Wade et Macky wax na ko fii ñëpp dégg ko Alpha daf ko wax. yamuma ci Alpha Condé. góor gi je termine euh, Lamine. je termine Lamine. vous me laissez la parole. waaw waaw avant Alpha Condé waaw nga naan dafa deal. waaw ah. muy Ablaye Wade. Ah. journaliste nga. Ah. bi mu jógee France ñëw di def meeting à la permanence du parti lan la wax am na ay chef d'état yu ma invité bëgguñu woon sax ma ñëw Sénégal. Mhm. Cheikh ñun dañu nekk ci logique. je vais vous dire vous avez beau défendre des arguments xamuñu lu tax demuñu élection c'est pas question de deal. yomboon na ñu changer candidat pour def fugurisme nekkuñu ci logique électoraliste bëgg élection pour dem élection non Abdoulaye dafa mos a gëm ni dafa xeex Sénégal 74 ba 2000 mu réaliser alternance démocratique avec son slogan de je ne marcherai pas sur des cadavres pour aller au pouvoir démocratie boobu mu xeex jël réew mi ñu dem ba Sénégal fal Macky Sall yéen ñëpp ngeen fekkee ko d'accord ci principe yi mu jël engagement yi mu jël pour consolider la démocratie sénégalaise et bon nombre d'entre vous peinent à dénoncer ces dérives démocratiques dañuy def jeu de on n'a pas à comparer la Guinée Sénégal fi mu tolloon ci niveau démocratique hmm. ñu wara tey dem ba toog di mën a tey yaa ko wax conseil constitutionnel Guinée mais bu Sénégal ñi fi nekk ñëpp dañu traité ñu prolonger seen mandat pour lan jox leen ay affaire leen ay assurance ay prime pour la pour ñu def li neex borom kër gi donc ku gis loolu xam ne loolu entorse démocratique la nga bàyyi ko foofu bëgg dem juge Guinée mais kooku sa liberté la mais man moo def loolu d'accord léegi donc je ah, termine waaw ah. ñu nekkuñu ci logique ah. électoraliste pour bëgg dem élection mu gën a yomb bu ñu demoon élection bu ñu neexoon ñu dem parce que bi ñu posé parrainage dañ ko fekki mais xam lu ñu mënul nangu organiser ay élections dañu jël réew mi ci démocratie joxe ko ci démocratie ki ñu fi taaj boo xam démocratie toog ci pour diriñu Abdoulaye bi mu jóge France xam nga ku mu njëkk a woo Sonko xam nga lu mu ko wax nekkoo fa woon. nan la ko on va vous le ku dem ci élection yi perte. faisons bloc retirez-vous. Macky Sall soo amul candidat ku mu bëreel ku muy bëreel CEDEAO dina ñëw communauté internationale dina ñu ñëw. ñu auditer le fichier ñëpp romb ko. ñu dem taxaw kër Pape Diop je termine. Mhm. yéen journaliste yi ngeen. ñu def collectif cinq kan moo taxaw ci Sénégal ku nekk nekkuloon candidat ku ñëw ñëwuloon signé ne d' accord nag ci résolution yi le lendemain ñëpp romb ñu dem campagne yi. ñu toog je termine. Mhm. da nga wax dama lay wax li tax ñu élection. ñu ne comme noonu la dañu nekk ñun ci xeex parce que bi ñu njëkkee ñëw jàpp ñu jàpp Karim les Sénégalais ont di Karim. ku nekk jóg. Uh-huh. Karim Karim Macky Sall réglé dossier Karim Wade ci Khalifa Sall ñeneen ñi jóg ne candidat mu dëxëñ leen indi parrainage am dindi leen alors ah, loolu gangstérisme antidémocratique. bon d'accord yéen dénoncé ngeen ko. d'accord uh-huh. Lamine. donc euh, ayons du respect pour les gens vous êtes des journalistes soo amee ay informations da i génnee. c' est ça le rôle d'un journaliste sans état d'âme boo amul nag bu ñu spéculer. d' accord léegi Lamine. ça que je voulais Lamine Lamine. avant ñuy ñëw ci chronique man xaw ma spéculation. loo bañ bëgg rek da ngay nangu ni. ku guddi nopp la. mais bon deal da ngay man je suis factuel xoolal man mënuma Lamine man mënu mësuma spéculer ci Sénégal. man je suis très factuel d'ailleurs des fois sax je suis trop factuel man problème bu ma am c'est parce que je suis factuel parce que man damay jaar ci digg bi. quand vous dites dire entre des choses factuelles Lamine Lamine oui dama lay wax benn affaire nga xam ko. waay diggante Sénégal ak Guinée dara mënu fay xaw lu ma ump. xam nga lu tax. je ne dis pas dama am vingt non dafa ndànk dama lay expliquer dañuy waxtaan soxna si baay rek ñu waxtaan. parce que Sénégal aussi des fois il faut qu'on éclaircisse les choses <laughs> tey Macky Sall bu nekkee président Ablaye Wade moo ko gañeloo. c'est votre Ablaye Wade. c'est-à-dire n'importe qui au PDS baax li ma la wax man li ma la wax laa lay wax. n'importe qui au PDS serait adoubé par Ablaye Wade au minimum dina am 10 pour cent. pourquoi on doit on doit aller élire quelqu'un d'autre non waxante politique non Lamine eh, il faut de bonne foi dama ni la tey bu Macky Sall toogee. oui c'est parce que Ablaye Wade moo jël laxam te croiser bras am di toog di xool Ablaye Wade écoute adoubé n'importe qui dans ce pays déglu baax li ma la wax. parce que ñëpp xam nañ quelle la l'assiette sociologique di PDS. PDS bokkoon ci ele waaye waaye non non Lamine non defal te d'accord ou pas ñun bokk nañ dama ne Ablaye Wade adoubé n'importe qui ah je vous dis Macky Sall du gagné à 57 pour cent. je vous parlais de fac. bon donc beneen affaire léegi leneen li ma lay digal. léegi leneen beneen xalaat bi ma lay jox. d'avoir pris un communiqué. léegi beneen pour dire à tous ces militants. Ah. Ah. si Macky a accepté. waaw ah. de parler avec Wade. par le biais même du président Conté. c'est parce que il s'est rendu compte que lors des élections législatives Wade est arrivé en deuxième position. voilà c'est tout. élection législative. xam ni bu Wade bokkee du ci génn et même dysfonctionnement. voilà malgré ce qui s'est passé Wade est arrivé en deuxième position. mu xam ni Wade bu bokkee bu bokkee carte gi jaxasoo day dem non day dem deuxième tour. loolu leneen la ci topp Lamine. xoolal fii kenn nelawul fi et puis c'est pas seulement Wade. waaw il y a aussi le cas de Idriss Seck et je vais en revenir. léegi beneen affaire bi ma la bëgg a wax mooy yéen PDS. dafa am xalaat bu ma am parce que junj doon na baro moom xel au di xaar keneen mun defal leen li ngeen bëgg ci seen nit organiser wu organiser seen stratégie ngeen jël nguur gi bu ngeen jëlee nguur gi ngeen def li ngeen bëgg ci seen nit <coughs> nit doo def combat par pro cest à sëñ bi li ngeen bëgg ci Macky Sall ci seen nit mais jël leen nguur gi parce que amul benn alternative bu leen gën a crédible yéen PDS amul. d'accord amul mais mënoo jël mënoo jël stratégie politique gu parti basé ko ci rek benn problème non bàyyi leen loolu. ñun def leen stratégie pour jëlaat nguur gi bu ngeen jëlee nguur gi li ngeen di def loo nit li ngeen di bëgg nii ngeen defal ko seen bopp. d'accord loolu moo gën a wóor. merci beneen bi ci topp beneen bi ci mooy parrainage. non non c'est important man et je l'assume Macky bi mu waxee parrainage dama def édito ni xam nga tax ma d'accord. amul benn pays au monde boo xam ne du ñu encadrer l' accès au pouvoir amul c' est pas vrai Afrique fii Sénégal boo bàyyee cent trente candidats ngay am fo fo nooy defee élection def nañ législative yoo xam ne nii kenn mënul sax teg feuille ci table ñu ni finalement mën nga jël douze listes pour dugg moom loolu mooy lan dañu war a encadrer loolu man xam lan laa d' accord démarche bi nga xëy suba ni par force man maay Macky Sall maay président lii laay imposé loolu je ne suis pas d' accord. mais le fait que toute la classe politique ñu toog teg ay règles ne lii ñëpp dañ ci war a jaar pour encadrer je suis d'accord parce que élection du caaxaan et puis xaalis bi ñuy def élection dafa bari te réew moo koy fay candidat yoo xam ne ay zéro zéro zéro zéro zéro partout war a nekk cinquante candidats ci élection fausse élection pour lan. donc c'est normal amul benn. d'accord naa amul benn. d'accord mais je termine sur ça je vous s'il mhm. parce que faut également chroniqueurs yi ci ci ci débat bi lañ bokk mhm. maa ngi ñëwaat léegi léegi ci yow donc euh, Cheikh Omar Talla pour revenir peut-être ci euh, euh, par rapport à tout ce qu'on a entendu ban appréciation ak ban analyse eh parce que on était dans la Guinée ci actualité Guinée mais quand on parle de la Guinée forcément on va parler du Sénégal du point de vue des relations qui lient le Sénégal à la Guinée Cheikh Yérim euh, amoon na relation ak Dalis xam na Guinée miin na Guinée Ablaye Wade dem na Guinée et c'est des interrogations légitimes qu'est-ce qu'il était allé faire en Guinée bi mu ñëwee Guinée ban posture la je crois que débat bi foofu lañ ko posé. correspondant am na non Cheikh Yérim la am bon carte moom bu la waxee Guinée comme moom moo la mën a wax fan mooy banlieue Guinée moom xam na xam na Guinée mais man xam na ci li ma intéressé euh, si CEDEAO Euh, le professeur Moussa Tine ma koy nuyu passage. Mhm. on les meilleurs textes en Afrique. am nañ charte bonne gouvernance et des élections de l'Union africaine. Mhm. on a le protocole de la CEDEAO. protocole additionnel. sur la bonne gouvernance c'est article quarante cinq ils disent en de rupture de la par quelque procédé que ce soit en cas de violation massive des droits de la personne dans un État membre la CEDEAO peut prononcer des sanctions à ci ci ci nguur googu. mais si vous regardez pour wax leen c'est le syndicat des chefs d'État au Mali quand la junte militaire l'armée a pris le pouvoir automatiquement la CEDEAO dafa génnee communiqué commencé jëñax l'armée bi kon dañuy artu yeneen armée yëpp pour ñu bañ a def mais fii li Alpha Condé def première mesure bi mu njëkk jël dafa tëj frontière bi bi mu tëjee frontière bi yamu ci loolu mooy frontière physique aujourd'hui frontière virtuelle c'est internet tous les grands dictateurs du monde dañuy couper internet parce que c'est l'accès à l'information parce que on va montrer que Alpha Condé est en train de massacrer de tuer mais beneen bi li ñu bañ a wax mooy ethnicisme boobu am fa c'est-à-dire mënoo wax Guinée qu'est-ce qui a fait la présence des Peuls ici au Sénégal sa commence si Cheikhou Touré ak euh, Diallo yi parce que Diallo yi commençait à briller et Diallo Telli fi ñu ko yóbbu ci kaso bi 21 jours de jet noir dans des conditions yu atroces boobu ba léegi tous les présidents qui ont en Guinée ñoom ñëpp seen sant pratiquement c' est Ka c' est Conté est Dadis Camara c' est Condé c' est donc finalement euh, li tax sax ñoom ñu daw ñëw fii parce que ni ñu leen doon massacrer wala ni ñu leen doon et je crois que Cellou peut-être il devait jouer sur la carte de la réconciliation on l'a pas entendu tenir ce genre de discours mais malheureusement comme j'ai dit il y a qui est là de troisième mandat Ouattara bi ñu demee médiation au Mali les malien dañ ko récuser parce que n'a pas de leçon à donner parce que Ouattara bi ñu waxoon ni moom c'est un fils de et ou de ou qu'il n'est pas ivoirien qu'il est burkinabé génnee ko ci ay élections moom moo jël tey Laurent boo xañ ko passeport Ouattara bi àndoon ak Guillaume Soro tey moom moo ne ko tey doo nekk candidat kon Ouattara n'a pas de leçon à donner d'où je rejoins Ba parce que Macky Sall atte yi mu def ci CEDEAO CEDEAO jël ay dogal teg ko ci kawam dakaa jël salfaañe lem teg fële yamu ci dafay dem ci ay élection jël ay candidat parce que quoi qu'on dise bu fekkoon ni xalifa Sall bu la waxee parti socialiste c'est Khalifa Sall am na représentativité politique en une année on a créé un procès def lépp taf tafee ko lu CEDEAO wax ñu salfaañe teg quand il s'agissait de régler problème de Yaya Jammeh en Gambie Le Sénégal n'était pas en reste, la CEDEAO n'était pas reste. Mais ici, le mutisme et le silence complice de ces chefs d'État, parce que l'imam dit on n'a pas besoin d'une CDAO des chefs d'État, mais d'une CDAO des peuples. Et aujourd'hui, l'affaire de la Guinée, on va laisser faire. Et pour des raisons même géostratégiques, Sénégal, Monoulnek, Guinée, Amoul stabilité, Mali, amule stabilité ni politique ni institutionnelle après suñu président toog fii di ñu wax wii nii wii nii non ku wax troisième mandat mu rëq sa ndigg yëf yi nag bu ñu ko toogee Guinée mu ñor fa bu ñu ko toogee Côte d'Ivoire mu ñor fa tôt tard dina ñëw ñor si fii beneen bi je crois que euh, si ci ci ci contexte bii ñu nekk nous ce qu'on devrait mooy jamais en Afrique mhm. képp koo xamante ni def nga coup d'état constitutionnel ñu régler ce problème parce que coup d'état du fetal rek am na coup d'état aussi électoral et ce qui se passe à Guinée c'est un coup d'état électoral et Alpha Condé est en de tuer on n'a pas entendu nos présidents mm-hmm. parce que kuy digle cangaay day fekk nga seet ba pare. Euh, li ñu mën a euh, dégg ak euh, li ñu jàpp yëpp on va dire que quand même kii Condé a su tirer son épingle du jeu. waaw bien sûr mën nañ ko mën nañ ko jàppee noonu sous la complicité des chefs d'État africains parce que tey ji lu ñu lay wax ni bu ñu couper internet Orange la Orange Guinée mooy couper internet empêché aussi appel internationaux yi di jàll euh, ñu ngi génne benn communiqué sax di excusé wu ci ay euh, yenn mbir yoo xamante ni nit ñi dañuy poser des questions waaw mais euh, moom laa la wax c'est-à-dire contexte bi ak timing bi mooy poser problème Euh, période yi nga xamante nit ñi ñu ngi commencé di gis yenn contestation yi nit ñi commencé di wax. waxu orange sax dafa ne ne que ñoom dañ leen coupé euh, connexion. sans pour autant que ñoom xam lan la euh, dañuy dédouaner seen bopp rek fii kenn du nangu accepter que ni yow yaay le responsable de ce ce qui se passe actuellement en Guinée mais boo xoolee bu baax da ngay gis ni y a des intérêts yoo xamante ni day nekk derrière maintenant li may dégg sànq ba tey aussi il faut ñu xam ni Afrique <laughs> lii colonisation bi partage de l'Afrique moo indi Guinée ak Sénégal li ay Guinéen dañ ñëw fii parce que dañuy daw euh, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça euh, dañu am une histoire boo xamante ne moo ñu lii ak la Guinée euh, c'est parce que en réalité ñoom ñoo partagé Afrique def fii Guinée def fii Sénégal mais pays frontalier tey am na ñaata Sénégal yu nekk Guinée est-ce que dañuy daw Sénégal est-ce que dafa am benn situation économique boo xamante ne moo ñu yóbbu Sénégal ñu jaay café wala di jaay du non du tout parce que peut-être dañu je parle pas de toi. ah ok dama dama dama dama dama wax euh, rek parce que c'est des choses qu'on entend souvent mais bu ñu fàttaliku rek ci histoire que Guinée Sénégal am na ay royaume yoo xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon ñoom ñoo taxoon ba tey jii ñuy wax waxu ay royaume Fouta ay Gana yooyu yëpp tey histoire pël yi du Sénégal kese du Guinée kese du feneen ak feneen kese li ñu war a jàng ci lii mooy lu mu wax c'est-à-dire bu ñu fàttaliku président Obama la je crois ñëwoon na Sénégal ñu jël suñu magistrat yëpp tëj leen ci benn salle mu toog ak ñoom déjà man loolu ça me pose problème euh,

il faut en Afrique ñu jéem am ay nit ñoo xamante ni ñu nañ ñoo xamante ne dañuy respecter seen li nga xamante ne mooy euh, serment yu ñuy prêter mais aussi africains yi aussi ñu jël seen responsabilité ne la lii xew Guinée Guinée ñoo koy régler gis nga ci réewu naar yi tax ma fan leen ci côté boobu gis nga ñoom bu ñu amee contestation da leen di jaral chaque vendredi ñu taxaw ci mbedd mi ñaxante kat policiers jarul ñuy reyante jarul ñuy def dara mais taxaw organiser ay manifestation pacifique ba li nga xamante ne dafa nekk mu jóge fa yaay jaam ba mu fa waree jógee Gambie dañuy def Gambie has decided def seen benn hashtag génn ci mbedd mi donc du ay. tax ñu ne léegi dañuy organiser ay manifestations générales et illimitées justement. mais c'est ça gis nga boo bëggee euh, dictature ñu lenn lu fuul. du ay wax du ay loi cest à ñoom seen yoon new ci ay loi ay règlement yow yaay toog fii di xaat ay loi ay protocole additionnel kenn xamul parce que ñoom ça les intéresse pas donc CEDEAO yi ñuy wax nii yëpp amul benn njëriñ parce que tey CEDEAO amul kenn ku mën jox exemple Guinée loolu je d'accord absolu ci élection bi nga xamante ni moom lañ jógee ñoo xamante ni jotuñu seen carte mun ñu voter am na ñoo xamante ni aussi euh, li xew fii euh, ci bisu référendum internet yi nga xamante ne dañ ko bëgg tëj donc loolu aussi am na ci Sénégal am na yoo xamante ni mën nañu ni quelque part que bu leen bu ñu leen comparé dafay xaw a euh, uh-huh. mais y des choses yoo xamante ne boo xoolee da ngay gis ni am na ay mbir yu identique te loolu aussi c'est c'est très naturel que ñu mën ko soulever mais je crois que lii xew gi na daal am na complicité état du Sénégal. très bien alors justement vous avez voulu rebondir par rapport ak euh, ak euh, Cheikh Cheikh Cheikh Yérim on vous écoute bëggoon wax Yérim ne ko les hommes politiques. bari nañu mais dañu wute Abdoulaye Wade foofu laa doon jeexalee ci demam Guinéem ki fa nekk ak kii xëccoog moom tey ñu ñëpp xaritu lay Wade lañ kon de fu ko Abdoulaye Wade jëlee lu mu ko defalul Cellou Dalein Diallo lu mu lu ko Abdoulaye defalul donc euh, foofu lay waxee ak yow donc euh, relation yooyu du amee nañ ko teg ci cadre relation yooyu bu ñu demee bu gis leneen ñu apporter les faits loolu rek laa bëggoon apporter ci lool beneen affaire bi mooy il faut que ñu nangul PDS sa posture politique du ñu parti caaxaan ou bien nit ñi ñu déglu 2016 la ñu tàmbali ak sénégalais. mais mais mais Lamine est-ce que c'est pas un peu grave. quand il soutient quand Yérim soutient aujourd'hui que euh, euh